lancer le message. C'est une très bonne idée. Non mais pas besoin d'en faire un thème pas besoin d'en faire un thème mot ma bëgg wax mooy mère au côté bële au Malibu Madame madame baignade interdite la donc je trouve pas intéressant wala je trouve pas normal que ñuy ériger Fofu, Ben ben ben place boo xamante place bu nit ñi di ñëwee di foo la benn place bu nekk foofu Malibu boo xamante ne nit ñi dañ fay ñëw di foo pour benn ben, ben place boo xamante ne baignade interdite la donc ceci dit ils n'ont pas le droit ñuy def Fofu, ou di di woo nit ñi di woo xale parce que Fofu, bu fa nit demee dina sangu ci géej bi c'est contradictoire par rapport ak ñoom lu ñuy woote foofu bañaat interdite donc warul nekk bañaat interdite ñu érigé fa place boo xamante ne nit ñi dañ fay ñëw comprendre nga déjà géej bi fii nii man mii mën naa feeñ <laughs> carrément macha allah mais duma fi sangu fii duma fi sangu parce que xam naa ne bañaat interdite lañ fi def xale yi xamuñu loolu donc di exhorter parents yi ñuy wax seen doom yi par rapport ak géej bi parce que am na ay dix huit dix huit noyades yu fi am xaw ma dix neuf xaw ma plus que ça plus que ça donc nous, nous, nous, nous, nous nous nous, nous nous, nous, nous, nous, espace nous nous nous nous espace nous créer nous plage c'est pas intéressant du tout c'est contradictoire c'est paradoxal man euh, euh, je fais appel qui euh, maire au maire comme nous, moi quoi nous géej gi nii ñu def espace yoo xamante ne jeunes yi ñu si ëpp nii ay yëmbal la ñuy jugee ñiy caaro yi xam nga ak ay doomu géej waay itam den di sangu ji foofu noonu quoi yow comme que dem nga ba irrigué foofu benn boo xamante ne léegi booy dañuy ñëw di sangu noonu fii am na ay sapeur am na ay policier pourquoi pas xam nga sapeur yi noonu côté boobu nga xam ne fa lay eh, booy di dem di sangu noonu quoi sapeur dugg si ndox mi def benn limite boo xamante ne nañ ne euh, diw booy sangu fii fii fii nga war a yem quoi tu mu am surveillance waaw mais ñoom bu ñu demee ba def nii ba pare nit ñi dafa ñëw sangu te amul surveillance cela ne veut rien dire quoi tu vois xam nga donc ñoom ñoo war a jóg nii euh, wàcc foofu xam nga taxaw daal public parce que xale moom xamul dara quoi l' enfant c' est le fruit du dessert de vie il ne vient pas de nous mais passe par nous quoi ñoom xamuñu dara waaw donc euh, fekkee den irrigué lii ba pare noonu dafay place fookaay xale yi di fa dem di foow noonu quoi bu ñu gisee ay mag di sangu noonu dañuy sangu waaw ak euh, tableau yi ñu defoon noonu bañaat er interdit yooyu yëpp dindi na gisatum ci benn waaw bu yeboo nañ ko delloowaat moom moo gën a rafet quoi teg fi ay nit yoo xamante ne dañuy surveiller tam plage bi di xool ku nar kii ni ñun la génneel quoi moo gën a rafet bon sama moo de la fin mooy maanaam ñu waajal euh, Nice Time euh, cinquième édition la 11 août incha allah au foyer des jeunes de Wakinan bon venez nombre xam nga boo leen ñëwee xam nga ñu def showcase concert bu neex quoi jeex nag deenaa yam rendez-vous le 11 août incha allah jaajëf